campagne de reboisement au Sénégal lancé nañu ko fii ci Touba Mbacké ki amal di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci bëss bi nga xamné lañu jagleel garab mu yamok ñenti fan ci weeru août mairie ville bu Touba am contenté ci luñu tan tànn dëkk bu sel bi di rafetlu bu baax baax idée président de la république ci li lii xalaat bi mu def ak jëf ji ndax lancement de de journée bi mu xalaat ko ne da koy defee fii ci Touba loolu lu am solo la loolu aussi cër la bu mu cëralee dëkk bi waaye cër la bu mu cëralee sëriñ bi. ñu jàpp ne service de l'État yépp teewe nañu ko te indi nañu seen ak jàppale. am nañu ci journée yi nga xam ne mooy journée nationale de l'arbre. bi nga xam moom lañ couplé waale ak setal suñu réew boobu nag Sonaged macha allah mobilisé na li mu am yëpp donc nga da ngay da ngay nettoyé wala boog nga jëmbat garab xëy nettoyé ci li ngay nettoyé dina amaale compostage booy man a soqalee garab gi ba mu gën a màgg. donc tey ñu ngi fii à Touba pour accompagner initiative bi ministère bu yor urbanisme nag. Euh, faut anticiper parce que nous avons 50 éléments qui nous accompagnent pour nous reboiser axes stratégique. yi stratégique stratégiques déjà les grands axes ici à Touba reboiser au minimum 4000 arbres. li agence de la reforestation et de la grande muraille verte te li ko tax a jóg mooy bokk na ci fexe ba Sénégal am li ñu naan écovillage ba noppi naatal àll bi ñoom it am taxawaay ci bés bi fii ci Touba. depuis ay weer ñu ngi liggéey ak euh, waa Eaux et parce que ñoo bokk liggéey bi ñoo bokk mission euh, suñu contribution dañu contribuer ci matériel bi. Euh, ci petit matériel mais ci grand matériel pour pouvoir arroser di ngeen gis tey tricycle yi pour arroser agence bi moko joxé euh, euh, euh, ci communication aussi gis ngeen lu communication mais aussi si walu ressources humaines Si je les ressources humaines je donne une mention spéciale au programme Xëyu Ndaw yi xale yi ngeen di gis dañuy si région yëpp Sénégal te ñu ngi la direction des forêts ñu bokk liggéey bi pour ñu mun a atteindre objectif euh, reboisement bi. ngir garab màgg nag jariñ alam bi ba noppi jariñ mbindeef yi faaw jiw yi mucc ayib. donc ñun ci walu gëstu dañuy nek di liggéey lu bare bare ci jiw jiw yo xamni dina mëna sax ci gox-goxaan yu fasantikoo ci Sénégal ndaxte sax euh, jaww ji soppeku gi indi na ay jeexintal ci walu taw ak tawin waye gëstu nañ gëstu yo xam dinañ am ay jiw yu mëna am njariñ bés bi ñu jëmbat garab nak fi ci Touba Mbaké te président de la République ñew amal ko day lancer li ñu naan campagne de reboisement nga xam ne dina wéy ba nawet bi daal jeex